dama faratu la yéene ci politique am ci kilifa gudul peuple sénégalais donc station yi ma mën a toog ñeent yi rek la conseiller municipal u Thiès conseiller régional u Thiès député à l'Assemblée nationale wala président de la République mu teg ca ne ma waaw senaa bi nag senaa bi mën nga koo jël puisque boo nekkee ci biti nit ñi dañuy jàpp ni dañoo réeroo moo tax duggoo ci gouvernement bi walla dañuy jàpp ni dangaa toog rek di xaar ma fa kastalu nga for mu ne ma loolu rek laay bañ moo tax ma bëgg nga ñëw jël Sénat bi bokk ma ne ko bu fekkante ne waa Thiès def nañ ma sénateur u Thiès yéen sa sénateur u APR yeeg AFP yeeg ñi ci des ngeen nangu maa fal président Sénat cër bu bàyyi koo ci askan wi la mën naa koo jël mu ne ma bismillah ginnaaw bi am na ci yeneeni xalaat ba ni mu ko supprimer tey boo ko nangu woon wante <laughs> bu ma ko nangu woon coow topp ma lu lu lu gën a rëy coowul